Cette journée ne doit pas seulement être consacrée aux festivités. Nous devons parcourir l'ensemble des faits intéressants à la femme qui ont eu lieu depuis que cette journée a été décidée, c'est-à-dire 1977. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire, dans le bilan d'État, que la parité occupe une place centrale sur les réalisations en direction de la femme sénégalaise. Mais nous devons également dire qu'il reste beaucoup à faire. Si nous regardons le taux d'analphabétisme des femmes, nous disons que ce taux est trop élevé. pays et de notre continent et surtout un retard basé sur les connaissances. À ce niveau, la femme accuse un retard et nous devons en être conscients et travailler pour que demain, si nous voulons que cette parité soit effective dans tous les domaines, il faut que ce retard accusé par les femmes soit rattrapé. C'est pourquoi j'encourage les étudiantes, mais également les étudiants, parce que l'Afrique, notre continent, est en retard. Pourquoi nous devons nous poser des questions Et si nous parcourons l'histoire, nous savons que l'Empire du Ghana qui était fondée avant Jésus-Christ, était une entité africaine où nous pouvons dire qu'il y avait des connaissances et une grande culture qui était une culture africaine. Cet empire connaît à travers sa capitale Kumbi-Saleh déjà une avancée au plan de l'urbanisation, mais malheureusement, après son déclin, cet empire également a entraîné, notre continent dans le déclin. Donc je voulais faire cette brèche-là uniquement pour dire que si nous voulons à travers la célébration de cette journée dédiée à la femme, nous devons également corriger les disparités qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est nécessaire parce que l'avenir appartient à notre continent, l'Afrique. Mais nous devons préparer notre jeunesse parce que tout ne sera pas donné sur un plateau d'argent également, et nous devons le savoir. nous nous nuyu finissons. fi félicités, surtout yéen journée bi Nous journée bi kanam

l'autonomisation de la femme je crois que c'est très utile Yen wute New York, ñi yor sabar yi ak tëgg Quand rek tëgg fecc dem ñi ci félicité parce que xam nga nit ñi légui dañu yakamti xam nga bu ñu nekkoon pouvoir bu bu ñu neexee ñu feesal stade euh, nu mu tuddati Léopold Sédar Senghor waye ñafa nek nekk yëpp gëmuñu dara yeen ñi yéen gëm dara. li ma doon wax léegi yaay man al yaay man albis xam nga fo ya foo yàggul mënoo fa am dara euh 2012 elle était 56e sur la liste de 56e. 56 e cinquante sixième ñoo xamni ne jitu député <laughs> mais nous xamé du ñu nek ci liste yi daw nañu mais limu am daf ko mérité parce que lolu moy nit man lolu la xam ci nit am conviction forte Donc, ba dara xew nga laaj sa li nga nit ñi ànd gor yi ànd ba am dara nga jóge fële bëgg a jël wax na dëgg wax na dëgg xam nga dama waxtaan ak benn koo xam ni léegi ci bi bala may ñëw ci parti Macky Sall la bokk te kilifa la mu ni ma ñun on a un sérieux problème parce que depuis quelque temps ñi nga xam ni ñun ñi amoon tuuti musuñu lekk benn xaalis ñooy def lépp on est submergé xamatuñu sax ba xam ci parti bi lañu ñu bokk wala bokkuñu ci loolu nag interpellé lañu ñun ñi nga xam ne ñooy jiiti parti yi parce que aussi nit ànd ak yow ba nga amul dara mu metti ba am dara keneen jóge nga jox ko poste bàyyi ñooñu wax dëgg yàlla loolu loolu ñun la vraiment content. journée bi li doon wax mettre à profit pour xam jigéen ñi fu ñu ak journée bi wax jigen ñi parité n'est une réalité effective dans notre pays il faut que retard disparité bi am entre l'homme et la femme ñu corriger disparité bobu nak du disparité ben ludul euh li nga xamni mo moo Afrique suñu parce que retard bi ñu am par rapport aux autres c'est un retard uniquement basé sur les connaissances euh, De africain amul culture l'olu du Afrique première connaissance du monde Afrique le jógee Yep, Égypte le il yi fa lañ ko waaye ma wax ni ñun suñu yi empire ni du Ghana c'est avant Jésus-Christ empire boobu booy seet tey li ëmb la te capital bi Sénégal Kumbi Salé boo étudier capital bi li nga xamni mo fa am nga africain ni wul won ginnaaw ci xam-xam waye lan motax mu am un décrochage ñeneen ñi dem ñun ñu taxaw lolu nak foog africain yi geussuko mo wax ni jigen ñi donc il faut que retard bi ñu am sur les connaissances ñu fexé ba mu mu euh, ndaxte jigéen man expérience bi ma ci am bi ma nekkee maire de Dakar dama jël direction yu bari ma jox ko parce que déjà booba man j'avais une parité plus que la parité sax parce que jigéen ñi ñoo ëppoon mais satisfaction yu mag yi ma am ci jigéen ñi laa ko amee kon

Euh, surtout que nous sommes un pays sous-développé barina. il faut que nous changions ñu changer ko des hein, centaines de millions te waron dem président di nga du mais nous yoyu war nañ ko pour redresser notre pays mais continuer sur ces pratiques-là, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. ànd président Ouad partout dans les aéroports, ñëw ci aéroport ministre sax du la teeru chargé d'affaires mooy ñëw nga dugg circulation ben moto jitu ngeen topp ci mais lolo yon aussi lolo yon doit dem Europe ba gis le président ñu defal ko lu président France ñëwee ñu dajalé tout un peuple là une journée de travail mais mais combien cela nous coûte alors waaye maa ngi gàc gàcce ngaalaamal Sénégal damay wax ni euh, bu kër yi baaxee jigéen ñi la parce que da ngay gis gor gu xey sànni sa jabar 1000 francs wala 2000 wala 2500 daal dem do xam sax lu muy jar leneen te bo ñëwee bëgg fekk fofu lu baax te jigéen ñi wax dëgg yàlla loolu euh, ñoom la dama daan wax ni bi ma nekkee maire chaque fois bu ma tasee population yi ma ni leen suñu fexewul kër yi baax te kër yi jigéen ñee koy baaxal mbedd mi du baax

pour appuyer la parité waaye damay joxe bourse sociale ah joxe yelwan du tax rew développé mukk ci andina jangal ma nak mo gën nga may ma jënd lolou wax nañ ko eh, et puis bu ngeen sété Thank you.